ma yow laa jëm est-ce que est-ce que mën nañu féewu ci li nga xamante moo di manquement yi am ci assemblée nationale pour mën a épargner ki nga xamante mooy le le le le premier ministre euh, mu dem def li nga xamante moo di déclaration de politique générale. Euh, jërëjëf baabu maa ngi lay sant bu baax di la gërëm ci question boobu euh, man sax j'aurais posé la question d'une autre manière parce qu'il s'agit pas d'épargner ou de ne pas épargner Ousmane Sonko en il s'agit de permettre à Ousmane Sonko de pouvoir venir faire un exercice dans les règles qui sont établies euh, dans le cadre de notre République. non boo gisee ma posé question bi noonu parce que. Mm -hmm. groupe parlementaire Yewwi Askan Wi ñoom dañoo soulever li nga xamante moo di manquement yi moo tax ñu wax ñu wax Ousmane Sonko du war du warul mën a ñëw ci assemblée nationale. justement loolu laay wax ni c'est-à-dire que assemblée nationale dafa war a rapidement réajuster wu le premier ministre Ousmane Sonko de venir faire sa déclaration de politique générale le premier ministre li mu wax c'est tellement simple on ne peut pas faire un tel exercice dans l'illégalité aujourd'hui le règlement intérieur de l'Assemblée nationale bi nga xam ne ci lañu war a fondé wu moom mooy compléter constitution parce que là je rappelle pour l'opinion que constitution bi dafa ne premier ministre dafa war a def déclaration de politique générale mais c'est une loi organique qui détermine euh, donc le cadre, la date, etc., les procédures. Cette loi organique-là est actuellement 40. 40. Alors, on attend de, de, de, de l'Assemblée nationale que nous corrigions l'eau. C'est tellement simple, ça devait être tellement simple pour, les, pour les, la, la majorité, donc, euh, euh, donc les députés de Benon, mmh. de corriger cette, ce règlement intérieur-là, d'insérer les dispositions qui permettent à M. le Premier ministre de venir s'exprimer devant la représentation nationale. su ko defee débat du am ci réew mais euh, Babou euh, le problème fondamental qu'on actuellement mooy euh, on a une assemblée nationale dont on peut se valablement se, la question de sa légitimité. Ah, comment ça? parce que euh, nous avons élu cette assemblée en janvier en en, en juillet 2022. Entre-temps, des développements politiques ont orienté le peuple sénégalais vers une nouvelle majorité conférée à l'ancienne opposition au PASTEF ñu fal Bassirou Diomaye fay mu jël Ousmane Sonko daf ko premier ministre Sénégal yëpp nekk ci orientation boobu jël fas yéene gunge les nouvelles autorités de ce pays pour l'intérêt général de tous les Sénégalais y compris des des, des députés de Benno ñoom ñu ne ñoom les repré ñoom les représentants de ces Sénégalais là ils décident de marcher à contre-courant de l'histoire et de la volonté du peuple sénégalais est-ce que euh, yow tu ne peux pas te poser valablement la question de leur légitimité ils ne représentent plus le peuple sénégalais ils représentent des intérêts partisans mais comme mais comme comme la fait la comme la fait la coalition Yewwi Askan Wi ah ñoom tamit seen seen seen seen seen seen parti la ñu défendre seen seen président de parti la ñu défendre moo tax ñu yëkk kàddu yi ni mel aussi. mooy gars yi tam mën nañu ko mën nañu ko analyser mën nañu ko analyser non c'est intérêt ku nekk da ngay défendre sa parti waaw pas intérêt ku nekk da ngay défendre intérêt réew mi ci sa cadre parti ak ci sa cadre gis-gis. ñun nekkuñu fi di défendre suñu parti bu kese kese dañuy défendre li nga xam ne moom lañ jàpp ne mooy intérêt réew mi. Mhm. de ce point de vue là jàpp nañ ne intérêt réew mi mooy déclaration de politique générale bi dañ koy def à la kulihal parce que constitution bi moo ko demandé mais d' abord dafa am leneen loo xam ne aussi constitution bi daf ko demandé mais tous les actes que les autorités publiques posent dafa war a ànd ak ay règles. la déclaration de politique générale dafa war c'est encadré par le, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale su fekkee ne règlement boobu ñun ñëpp constaté nañ nekk règlement boobu permettrul tey exercice boobu ñu def ko ñu demandé à et li ma ci bëgg a wax mooy Guy Marius Sagna avait demandé à Amadou Ba la même chose qu'il a demandé à Ousmane Sonko ne woon na ko bul ñëw def sa déclaration de politique générale parce que règlement intérieur bi reconnaître la. mais n'empêche que moom si boppam am na yenn am nay dossiers yu ñëw fa mu voté ko ci même règlement intérieur assemblée nationale. noo xam nga. Euh, moom Guy Marius Sagna boobu loo gis dafa am li ko jar ak li ko jarul. la déclaration de politique générale c'est extrêmement sérieux ensuite leneen lu ñu fi def yëpp dafa am ay disposition yu nekk ci biir règlement bi yoo xam ne ça concerne ces activités ces activités là. loo fi mën a jël am na ay dispositions yu ko encadré yu nekk ci mm-hmm. mais la déclaration de politique générale mm-hmm. euh, n'existe plus c'est la seule disposition qui a été sortie de du du du règlement intérieur euh, nga may ma c'est la seule disposition qui a été sortie du règlement intérieur pour s'adapter à la suppression du poste de premier ministre bi ñu ko delloosiwaatee c'était facile quand même de remettre ça d'autant plus qu'il y a des députés qui ont posé ce problème-là à quel jour à quel jeu jouent jouent ces ces députés-là et vraiment je pense que notre plus grand problème c'est d'avoir des députés dont le le le l'amour pour le pays pour la stabilité commence à faire défaut. merci beaucoup euh, Baye Mayoro professeur si yow laa professeur.